boo xam ne nii peut de day leer nañ foo bàcc mu leer. Ah? waaw. waaw ancien combattant yi boo doo sama ginnaaw rek ma yóbbu la. sama mission fii bu eggee jàpp leen na ñoom ñëpp su ma ñëwee dinañ daay dama leen di rey ñoom ñëpp amul sax werante dafa xool bu jaree rey reyal bu jaree rey reyal. bon problème bi lenn la c'est simple ñun kuñ fi luwee reykatu nit. Babacar man maa la ko ñaan bàyyi sama loxo ay Babacar <laughs> yow baaru kan ngay nag yow. kon eh. moom boobu moo ma rey ci moom. yow yow ko ñàkk fay la. Hmm, naa yegg de dëgg laa la wax. yow li nga wax Clara mooy dëgg yow. mooy dëgg bu wér benn sax. yow man dama yaakaar yow sama xarit nga nekk yow doo sama xarit. yow lan la yow xanaa Clara du yow léegi xam nga ne man damaa nopp Babacar léegi nga ñëw nga nag si jàppale Clara. du tax du ma ko dama ko si jàppale bu baax parce que yow xamoo bëgg te jéemoo sax bëgg dangaa jël sa dangaa jël sa xol bi def ko ni kaaraat ku ñëw rek nga jël ko yeb ko wóoy wuy wuy sama ndey wóoy wuy ma fii boo fi bëggee dugg daa am méthode bi fiy duggee xam nga def ma expliqué la maa borom kër fexeel mbii nii fu jotee nga sol yére jigéen maquillage déglu ma sa waaj wala bëggoo ñëw bon neen def ah, naa fi euh, yàgg ñëw mais peut-être la ko yàlla dogal